ginnaaw bi mu tëddee ba léegi presque ñaari at wax dëgg yàlla ndax tey ji ginnaaw yàlla ak yonti bi moom lañ fi dese ndax mooy sunu papa te ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér waaw di ñaanal ñu fi jóge di ñaanal sunu papa duubalees mi jóge barki Dembo Njaay yàlla na ko yàlla xaare àjjana moom mii lañ fi dese nag mooy sunu papa yàlla na fi yàlla yàggal yàlla na fi yàlla yàggal yàlla fi yàlla yàggal te nga am ak wér ndax yow lañ fi dese demagoo nag yaa ngi fi ba ci kanam soobu yàlla di nga fi toog uuf njaboot gi ba ci kanam ndax yoo leen fi dese waaw li ma lay ñaanal daal yàlla yàggal la fi te may la wér tey dérangement bii ñu def buñ ko waree def yàgg na waaw déplacement bi ñu ko waree def yàgg na te maa ngi ko doon waaj boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla avant dëju papa Double Less bi laa fi waroon a ñëw wax fa dëj bi am waaw sunu papa Double Less bi yàlla na ko yàlla xaare àjjana at mbooloo mi jullit voilà ñun géejaway la ñu am géejaway li ñu tiitaroo man xale yi man maay seen mag su ma ñëwee mel ne xale yëpp ñëw nanu su ma ñëwee mel ne xale yëpp ñëw nanu ndax ñëpp man maay seen mag loolu yàllaa ko def yow nag yaay sunu papa man maa ngi lay ñaanal yàlla may la wér te incha allah rabbi di nga am wér keroog am na loo xam bi ma ko déggee bi ma ko déggee sama yaram dafa daw waaw sama yaram dafa daw loolu bi ma ko déggee sama yaram dafa daw moo taxoon nag ma ne lu ma mënta jàpp lu mu xat xat xat xat dinaa ñëw ma ma waree ñëw nag yàgg na maa ngi jéggu lu baax a baax dëj bee ma téye woon rek ñoo ngi jégalu baax a baax a baax yow sunu papa nga yow lu la naqari war ñoo naqari te yow yow leen fi dese yaag sunuy bàyyi la woon yaag sunuy papa la woon tey géejawaay mun naa wax yow yaa fay kilifa fi ne yow géejawaay yow yaa kilifa te maa ngi ñaan autorité nekk géejawaay maa ngi ñaan te yàlla tax di leen ma ko defal waaw ndax man su ma waxee ndax xale yi maay seen mag su ma waxee di leen ma ko defal incha allah rabbi sooba yàlla ñu dénk jël ko asaar ku ci mel Aziz Ndiaye am na lu ma ko wax dina ko def jéey nag moom yaa ko gënamal sa bopp nee nga yaa ngi ko doon gis jéey waaw dina ñëwaat su sooba yàlla ak ku mel ne Aziz Ndiaye maa ngi koy gërëm di ko sant bëgg naa mu ñëw jàppale ma sama papa ji ah euh, kii nu mu tudd euh, Moussa le maire Aliou Sall sama xarit la incha allah bi dina ñëw dina la jàppale dina la taxaw Adelaat Diop directeur neen Nene taal Malick Gakko ak ñoom Ahmed Aïdara ndax ku fekkee dañoo bëgg géejaway te ñun ñu dëkk géejaway man may monument géejaway sama papa ji feebar dama bëgg ñu ñëw jàppale ma taxawul ma sama papa ji ndax moom laa fi dese ah moom lañ fi dese géejaway képp kuy mbër géejaway moom lañ fi dese mooy fi sunu kilifa waaw de waaw dénk dama ma géejaway waaye nag moom mooy fi kilifa gi ah waaw waaw waaw dëgg rek laa wax nag mooy sunu kilifa nag yàlla fi yàlla yàggal te may ko wér moo fi kilifa ndax du ma jël lépp ñu sëf ma man du ma mag moom sama papa la moom mii mooy xalifa bi moom mooy xalifa moo tax ma di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér loolu laa la ñaanal yàlla na la fi yàlla yàggal te may la waaw ndax man ñun lu nu def la ko war a def ma ànd ak sama rakk ji tey Alioune Seye ma ñëw seet su ma ñëwee man Guédiawaye gépp ñëw na ñëpp ñëw te incha allah rab ñëpp dinañu enveloppe bi nag di ci nekk jaruma koy wax teel ma nii sama papa nga li du ma ko wax waa jaruma koy wax sama papa la ndaxte damaa bëgg ñu ñëw jàppale ma ci moom sama papa ji damaa bëgg ñu jàpp ñu jàppale ma sama papa ji waaw non damaa bëgg ñu jàppale liiru dara tey soo gisee ñëw fii ñun suñu ñëwee dañoo war a ñëw suñu ñëwul dañoo war a ñëw ndax mooy suñu kilifa moom lañ fi dese kilifa yu nekk autorité nekk géejawaay yi laa la wax autorité nekk géejawaay ah maa ngi leen di ñaan sama papa ji ñu ñëw jëlal ma ko en charge te billaahi dina am waaw kii Euh, euh, mbër la woon waaye yorul ji koy mbër ndax xol bu rafet laa biir yéenewul kenn lu bon te lu baax rek lay def man maa ko xam ar jàng alxuraan rek la xam foo ko fekk mi ngi kaamil mi ngi alxuraan barki sëriñ Salim Mag foo ko fekk mi kaamil mi ngi alxuraan jàng alxuraan kii tey su nekkul mbërum la am sëriñ lay doon waaw sëriñ lay doon Lamine barki sëriñ Fallou Mbacke man xam naa ci dara man waaw ndax dem naa ba dëkkam waalo dem naa ba Ndar moom xam na li ma ko wax yàlla na la fi yàlla yàggal papa yàlla na la yàlla may wér teewul naa fi waa géejawaay gépp waaye ñii daal maa ngi leen di dénk li ma leen dénk muy autorité géejawaay yi Aliou Sall laay commencé mu sala maire maa ngi koy woo mu ñëw jàppale sama papa ji euh, Lat Diop directeur de maa ngi koy woo mu ñëw jàppale ma sama papa ak Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye dina ñëw incha allah rabbi ndax woon naa ko am na lu ma waxoon dina ñëw jàppale ko maa ngi leen di ñaan ñu ñëw jàppale sama papa ji yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla la yàlla meer wéer bul ragal bul tiit ñoo xam na la am lu la yàlla may jàmm rek ngay am sa nawle yaa ngi dem nag moo tax ngay xaw a saalit léeg-léeg waaw waaw waaw looloo tax muy xaw a saalit man xam naa looloo tax ngay xaw saalit ndax tak ah moo yay saalit nag yaa yay ndax soo nekk ak say nawle ñuy dem par benn benn moo tax mu saalit rek génn wax ba xam xam naa ko yow yàlla na la yàlla defal jàmm jàmm rek nga yam papa yow jàmm rek nga yam barki sëriñ Fallou Mbacke yàlla na fi yàlla yàggal tamay la wér sa papa dafa saalitoon nag moo yay normal feneen fu ma ko def te defewu ma ko fii waaw ma ne feneen fu ko defee te defewu ko fii du sofe ndax kii sunu papa la mook sunuy papa la woon te moo ñu yar moo ñu yar de xanaa xamoo sama premier combat ci com euh, ci kombaam laa ko bëre muy combat Moustapha Gueye at moom Moustapha Gueye bi ñuy mag si niil si laa dóore woon Vandam mu daanu kooku yaa ma ko mën a témoin ndax ñu bëri dañuy wax combat am combat boobu amul ba may dóor Vandam mu daanu ah yow yaa bëre Moustapha Gueye mag moom après si la bàyyi bëre boobu mooy sama premier combat barki Serigne Saliou Mbacké waaw moom mii mun na ko témoin dina ko seede tey waaw incha waaw incha allah rabbi ña fa nekk ñëpp dina am incha allah léegi dina am léegi fan yi sunu waaw xam nga tey benn affaire moo am Lamine yow xam nga ne liiru man yàlla may na ma ay nit yu baax tey ji ñii ma lim fii su ma nee na ñu njëw jëla ma sama papa ci astar di leen ma ko defal te dina am incha allah rabbi muy mu ci Aliou Sall mu sal maire maire way Lat Diop ay nenn taal autorité Guédiawaye yëpp maa ngi leen woo ba ci jéey sama patron sama xarit maa ngi koy woo ndax lu ma nekk mu nekk ci moom moom wax dëgg yàlla sama papa gërëmal na ko booma ndax keroog bi mu waxee ak man téléphone dafa ne ma gërëmal ma jéey billaahi wallaahi taal nii la ma ko waxee gërëmal ma jéey voilà kon nag loolu sant yàlla la waaw waaw léegi ñu autorité Guédiawaye daal maa ngi leen di woo ñu ñëw jàppale ma ki ak képp kuy sama xarit maa ngi lay woo ci li ma nekk ngeen jàppale ma ci ndax ba Lamine bañ na ma ko tuddee livre social voilà nga prison yi incha allah fa dem loolu lépp baax na waaye lu ma mënta def daal Lamine te defewu ma ko fii amul sens ndax kii sunu baay la moo ñu jur moo ñu yar moo ñu teete yàlla na ko yàlla defal jàmm te mooy ko ak wér. waaw ma ciy jàppale samay nit rek xanaa samay nit yu baax ku ci ne Mansour Kassé sama xarit la sama waay la euh, kii nu mu tudd moo Ndiaye directeur série Madeleine hmm? at Seex euh, sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan at sëñ Cissé mu sëñ Babacar samay sëriñ lan samay xarit la ñoom ñoom war a jàppale at Samba Ndour tamit dina ci jàpp waaw ñoom war a jàpp ma dem ci prison yeeg feneen ak fen Adja Gass sama yaay ja ca Angleterre ah euh, kii euh, Cheikh Thiam Cheikh Thiam téer bu mag bi nekk New York tam sama xarit la ah ñoom ñëpp daal sama kuy sama xarit daal maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma ndax bañ nañ ko ba tuddee ma léegi léegi liiru social kon nag sant yàlla sant waaw waaw yii ñi mbuur ñemee ma faa dem instant yi naa bàyyi ba combat Balla Gaye bi jàll kase dinaa ñëw waaye il faut Balla Gaye daan Bombardier ba noppi ma doog ñëw mbuur incha allah rabbi ah, di euh, nuyu sama waaja tamit tax non sama waaja ka nekk mbuur président Mamour Kandji borom mbuur géej xaañ jox sunu papa waaw aousubillahi mina seytaan rajim billah gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di leen masawu si coono bi ndax fii dafa sore ak seen déplacement bi xam naa ni lu la Eh, ñu ngi leen di ñaan yal na yàlla dafa leen jàmm yàlla mottali seen yéene yàlla ngeen àggal si jàmm la ngeen bëgg yenn xam yàlla na yàlla defal leen ko ndax wax dëgg yàlla eh, déplacé yi ñëw ba fii Cité Sofco bi ak nu mu soree ngeen ñëw ba fii déplacement bi rek dafa metti waxoobatal nag teraanga ji ngeen rek li ngeen def yéene ji ngeen si def eh, wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal lépp li ngeen bëgg si àddina yàlla na ko yàlla mottali te lii nga def yàlla na yàlla jàppale ba fépp la nga mébët yan yàlla kàttanal la ba nga àggale ko li nga wax dëgg la moom malgré nag man saa ndax xam naa ne moom ku matal dem li ma bàyyi ak yéen daal wax rek ku mat ku ku ku matal dem eh, ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla bàyyi na fi lu leen wéetali ndax yéen ndax man ngeen fi dese. Mm-hmm, dëgg moom. géej yooyu moom mën ngeen fi defee moom kon nag yàlla na fi yàlla bàyyi ñu leen wéetal ba sa kanam di nga fi eh, nag yàlla na yàlla dafa leen jàmm eh, yéen waa géej yooyu waxuma géej waa géej yooyu laa wax ñëpp commencé si Balla Gaye ak ak ñoom guy gi ak am na Aliou Seye numéro 2 di sama doom eh, papaam di sama xarit di sama kóllëre di sama mbokkum taale bi mm-hmm. yal na yàlla jàppale leen yéen a xam seen mébra seen bëgg bëgg yal na yàlla defal leen ko yal na yàlla kàttan na leen yàlla yàlla dooleel leen li nga wax nag li nga wax euh, dëgg la parce que euh, sànq laa jógee hôpital sax waxoon naa la sax ba ma waxee man damay xëy na am na gaa yu baax ñoo xam ne wax dëgg yàlla Keba woo ma ñu def ay teraanga bi ni ma daal demal loolu la manqué wax ma ko ku baax la yàlla na yàlla defal ko jàmm sa boo ñëwee woo naa ko woo mu kontaan trop ni ma nag daal maa ngi sa grand loo si kii rek ni ma lii ak lii yal na yàlla jàppale ko mottali yéeneem même ministre des sports gis naa moo tam Matar Ba baax la moo tam yow yow ma tam gis naa ko même euh, bu njëkk ba mën nga ko tuddeeti Kor Ndiak Kor Ndiak Kor Ndiak démb fii la fi ñëw dafa ma teraanga ju rëy dafa ne woon bu ko wax kenn bu ko wax si média bu am ko def la baax ku foog ñu wax ko. mënut kenn def lu bon xam nga sax ko wax ndax ñiy def lu bon ndax ñu soppeeku def juum xëy ki def lu bon dafa juum mm-hmm. ndax kenn du ci lu baax di ko tëkkale ak lu bon nit daan def di yaakaar ne lu baax la xëy na fekk muy njuumte la an yàlla jubbanti leen eh, lii nag moom rëy na si man lool dina gërëm comme comme comme comme ñoom ñoom jeey wax dëgg yàlla dama koy lakk sax damay dem ba dem wooyee la mu jàpp dana ko bàyyi waaye doom la waaye sama doom la wax dëgg yàlla di profité di di profité wala aussi di si gërëm ñoom euh, Gaston dina lay daj si man wax dëgg yàlla moo tam heure bu ma kii ma gée laa bu ma ko woo woo jéey waaw di gërëm nag waa ëllu làmb yëpp ah, eh, ka ma gis ak ka ma gisul eh, ak samay doom yeeg samay garbaat yeeg ñëpp ñu may jàppale ñëpp daal xam nga feebar bu yàgg da sonn feebar bi feebar bi dafa dafa yàgg depuis 2011 la woon. ma ko doon sooxaale. mais 2000 2019 la ma tëral complètement ba ñu opéré ma. mu opéré dama mujj opéré dafa dafa am problème. yow mujj ba takk benn centre laa mu nga takk nii si kii bi. opération bi nii ñu ne dañu lay defar opération yeneen moo tax ma doon demande yoon demande waaye yàlla defal na lépp moom. ku dee yàlla daal maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal. am ñu yéene ñi ñëwagul ñoom Giri ndeysaan mi may woo. Giri Bodo waaw am na ku may laaj sa numéro tamit. Euh, bëre ak ñoom kii ñoom ñoom sàkkee si woo nañoo démb dama ñaanal ñaan waxuma dara waaye ñaan yi ma ñaanal rek. Mm-hmm. ak ñi ma ñaanal fii ba ndar ba waal ku ne di ma woo di ma ñaanal ñaan ko rek mën na def yàlla bàyyi ma ba sa kanam. non di ma gunge leen ba sa kanam. ndax kat wax dëgg yàlla seen Cheikh Diagne si di sama sëñ dana wax naan yàlla gi nag bu rëy rëy ba sa kanam nag ah nga nekk ñaan nag mu teg mu teg mu tuuti ci temps yi moom bu yàlla ji reyee ba sa kanam nag ñëpp daje nag sukk sa kanam ñaan ka nag mu teg loxoom tuuti waaye ah, comme ba comme ancien bu bëri moom wax dëgg bëri dem nañu ah, ñëpp sukk ñaan ko nag bu bàyyi fi tuuti ah ah, ah allez ñu bàyyi waaye do mais bàyyi ba sa kanam boog. yàlla ah, baax na yàlla na yàlla mottali yëpp daal maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm yéen xam li ngeen bëgg yàlla na yàlla defal leen maa ngi sant ñëpp ak ku joomu waaye ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi ko mën a jàppale ndax loolu dafa jot am parce que dafa na dafa waaw ah. ndax loolu am ñoo xamante maa ci wax. am na wala amul. ah ndax dañoo joxe sa numéro ci loo yëg. waaw am na ñu ma am na ñu ma jox ñu jël sama numéro. Ah. pour si la ma yëg. Mm-hmm. ñu wax ma sama numéro. Mm-hmm. ak sama numéro doom bu jigéen mm-hmm. ñi ma ko jël nañu ko. Ah, ni ma jël ñu sama numéro ak sama numéro doomu jigéen ñi ma pour ñi ma bëgg a jàppale am na ñoo xam ne woo nañu ma ni ma bu soobee daan def seen participation am na ñoo xam ne def nañu seen participation looy am daal wax dëgg yàlla am na ñu bari ñoo xam ne li ñu def nañu ko waaye nag sama gaa yi ñëw démb démb bëgg démb ñoom Kanté euh, nu mu tuddati Kéba Kanté wax dëgg yàlla maa ngi di ko gërëm ak ministère des sports Matar Ba ak Kor Ndiak Tyson 2 xut dëgg yàlla ñoom nu ñëwee moom dooy ñëwee doole tabarkàllaaw dem na ma demee daa hôpital li ma waroon defee def naa ko résultat yi laay xaar léegi bu ñëwee eh, may gën a def xëy na yàlla bu yàlla namee ma wétti leen ba si kanam ñu bàyyi na fi waaye nag yàlla waaw waaw leen rus xam naa yow moom yow moom yow euh, moom nitu yàlla nga bu bu làqatu xam naa ne yàlla dañ la rus dina rus Aliou Seye Aliou Seye ak ak <laughs> waaw mais dara loolu dara si li yàllay maye ah, xam nga waaw lii am yàlla mooy maye kenn ku ne ak am na xam ne ñu jànguñu dara te teewul yàlla jox leen waaw waaw waaw xam nga sax loolu laa xam nga liir moom boo toogee moom dañ la réeloo ba ba nga fàttali bëri bëri bëri xam nga xam kañ li ma wax dëgg yàlla kañ laa gëj dee wax waaw euh, li di ko toog moom foog nga ree moo tax waaye li ñuy def mooy ñu ngi ñaan sunu mag Double Less sunu mag Mbaye Guèye ak ñoom Mor Fadam ñoom Mor ngeen kenn ku ne wax dëgg yàlla wóor na yàlla ak waxtu yàlla wii duma ma julli benn waxtu boo xam ne bi fu ma ñaan seen wajur teg leen si ñoom ñoo doon bëri doon ñëpp ñoom tubaabu joor ñoom Mor ñoom Mor Fadam ñoom ñoom Dut Bakassar ñoom Boy Bamba ñama xam ku ne daal dinaa la woo dinaa ñaan si yàlla yàlla yërëm la yàlla mooy yërëm yàlla na yàlla yërëm yërëm Sénégal yëpp ñu si dawalu ñi yërëm àddina bi yëpp ndax yërëm na yàlla moo gën a yaatu àddina bi mu ngi ñaan yàlla mu jéggalu ñépp yërëm leen xaari àjjana ñëpp ñu daaw la ñu ñi fi des nag yàlla bàyyi na ba sa kanam ak kanam ah ñu du leen gunge ba géej waaye dellaat fu mu fu mu nekkoon wala mu raw fu mu fu mu nekk fi ndax doon am waaw mbay mbay gay mbay gay euh, njàmbaaram parce que man ba may xale dama naan def fu mu bëree bu pare wa nekk góombar damay ànd ak moom damay topp si gannaaw moom mën nga boo xàmmewu ma damay topp gannaaw moom ba faas boobu maa ngi dëkk jàmm gën ma soog a départ jëla oto ñibbi si jàmm gën maa ngi fàttaliku même photo yooyu bu na am photo am na beneen photo boo xam ne si dama ko ba mu sa bu ma moom wax naa ko ko mais nag yaroon sama mbër parce que daal sama fugg fugg bi nga amoon moo tax yokk na ma si njàmbaar Eh, moo taxoon mu doon na grand bu baax bu ñeme dëgg te wax ni nga dëgg loo man def dana la bu dee dëgg mu la dëgg bu dee dëgg dana la eh, lii nga def dara du si am lu mu si làkk-làkkal moom yal na ko yàlla jàppale léegi nag moom doon sama mag lu nekkoon loo xam ne lii sunu sekkar la woon boo mosee ñëw fekk moo sama soxna su mag si sama aaw bi nga naan leen que xanaa kii yaay ak doom la day daal di ñëw fii lay tëdd wuufu si si kawam far yuy nekk waxtaan ci kër Massar heure bu ne heure bu ne même yaayu Balla Gaye boobu këram dama na ak di ñëw këram foofu euh, moo tax ma ne nga li ma wax moom mooy daal ñi ñi baaxoon ñëpp daal ñu ngi jiitu yàlla daal mi ngi tàmm ñu baax ñu ngi tànn la ñu baax di yóbbu rek ah. yàlla ah, yóbbu ñu baax ñi rek de kilifa yi diine yaa ngi dem mbër yi mbër yi baax yi nga mu nekkoon doon rek ay wër yu nëbb ñoom moo fa dem. waaye ñoom dubalee seen baaxaay xam nga ni ko Balla yàlla yërëm leen ah, ñu baax ñaa ngi dem rek ah noonu nag ah nekk ba sa kanam rek ah daal yal na yàlla xaar àjjana waaw di gërëm daal di leen sant di leen ñaanal jàmm di leen defal jàmm lépp li ngeen bëgg yéen a xam yal na yàlla defal leen ko. waaye ko yéen nabi sallallahu alayhi wa na ñu julli dëggal fe kan non man maa koy reeloo yàlla baax ñëw Aziz wax naa ko neen ci jàpp sooba yàlla waaw euh, monsieur le maire Aliou Sall dina déplacé ñëw ba fii wala mu yónni ndaw ku ma laaj sa numéro man dinaa ko jox sa numéro soxla ma ci intermédiaire maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp joxal seen numéro téléphone ku ku am yéene bëgg la jàppale joxal seen numéro téléphone. numéro téléphone moom si yore mooy 628 23 11 77. 77. 628. 628. 23. 23 11. 11. yaa numéro baa ngi noonu. Oh, ku ko bëgg a jàppale. wala wala 977. 77. 966. 966. 55. 55 68. 68 waaw ñaar numéro yooyu daal laa yoroo moom. ñaar numéro yooyu la yor ku yeneen ku fi joxe beneen numéro nag wala nga woot ci keneen. numéro paa bi mi ngi noonu ku ko bëgg a jàppale ñëwul seet su ko yàlla na fi yàlla yàggal. ndax am na koo xam ne kii. dafa ma woo téléphone. ni ma man maay kii ni mu di ñaaxarañ loo. ni man maa ni xam naa du moom. dafa ne man maa ngi ñaaxarañ loo dafa am la ma la bëgg a yónnee dama la kii mais foog nga jox ma sa sa sa code ma sa lii. kooku si laa xam ne su ma ne ma dama laaj daal. laa xam ne ana ma ne ko ah, yaa ngi tooñ jàmbur. su ma amoon su ma amoon numéro ñaaxarañ loo. naa ne ko am nañu mbuboo si tur. di jé voilà dimbali ma nga waxal ma ko lool. am na ñu koy mbuboo turam. topp na ma di woo su ma coupé moo woote waat jox ma seen jox ma kii daal jël sama ñaar numéro yi. dama mujj a sama code fort dama mujj a changé. ñaaxarañ loo sama frère barki Demba Ndiaye lan mujjee gisee sama papa gis nga ko dafa feebar am na ñuy mbuboo sa tur nag naan ko man la ñaa di ko woo bëgg naa nga ñëw def déplacement xam naa la sama jantal copain nga ñëwul def déplacement ma indi la ba ci fii nga ñëw seet ci paa bi am na ñuy mbuboo sa tur. voilà te def ko lu baax la nga man xam naa sa jukko waaw euh, maadu saw tamit maa ngi koy gërëm di ko sant sama xarit la ku baax la ca États-Unis gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp paa bi yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla defal jàmm Alioune loo ciy wax. sa doom ko yàlla yàggal ko fi te may الله لا إله إلا هو يرحمنا وتحيينا يا ابن السماوات كرسي السماوات والأرض ولا يعود السماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن شاء الله يعانيكم عليكم بما أن خلاص الله لا إله إلا هو ألم نصر لك صدرك وأنكسر لك فإن محمد أصيب من محمد لله بقريش لله بإمره التي تعيب السيف وليح الدار بأس البيت الذي يضع قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد فلح من سر ما قد خاب من سر خاسق من سر العصاب من قد من سر عين أسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يفسد الناس allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri lxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil aalamiin amiin yaa rabbana amiin bi wër àddina bi yàlla na ko fi yàlla teg amiin yaa coronavirus coronavirus tekk si àddina bi yëpp